bu may live mi ngi may woo di woo di woo di woo di woo di kon lu ma leen wax rek loolu la ma kenn ki di kilifa paste bi wax nee na ma Sonko a été kidnappé par la gendarmerie nationale la gendarmerie nationale nee na Sonko dañ ko jàpp nee na bu fi kenn wax ne Sonko nee na am na ñuy bind naan Sonko dafa sonn day respecté Popenguine ça c'est faux nee na démb ci guddi Sonko wax na ñoom fajar la fa gars yi ñëw jël si Sonko infiltré leen dugg fa Sonko yeggul sax Tamba bu mu jógee Vélingara yeggugul Tamba te man jotoon naa information comme quoi que Sonko Tamba dañ koy jàpp. wax naa leen ko sànq am na ku ñëw mu ngi ni Mamadou Gën boo leen dem ci internet ba du Gën démb nee na ma grand Pape ale nee na Sonko dañ koy jàpp Kaolack ma ne ko déedéet information bi ma jot Sonko Tamba lañ koy jàppee gars yi nee nañ du nangu Sonko duggee noonu Dakar Tamba lañ koy jàppee mu ne ma ah ma ne ko waaw donc tey ma yeewu ñu ne la disparition de Sonko ci laa xam ni kon sonk gars yi jàpp nañ ko parce que démb réunion bi amoon Macky Sall dafa gis ni moom ak force de défense et de sécurité si seen chef yi dafa yuuxu seen kaw daf leen yuuxu parce que dafa gis ni lii gàcce la lu mel ni force de défense et de sécurité benn nit di ko défier donc waa Pastef leader leader nee nañ Sonko a été kidnappé tôt le matin par les forces de défense et de sécurité jàpp nañ ko jël nañ ko yóbbu nañ ko kenn xamul fu mu ne Sonko est injoignable kenn mënu ko jot kenn instafam kenn nekkul ak moom nee na gars yi ko wër kenn nekkul ak moom nee na ñoo ñi ñi mu àndaloon ci cortège ba kenn nekkul ak moom protocole am kenn gisul Sonko kenn jotul Sonko kenn nee nañ moo xamale leen ni Sonko kenn gisu ko kenn jotu ko kenn gisu ko kenn jotu ko kenn xamul fu mu ne force de défense et de sécurité encore une fois ñoo ko jël ñoo ko yóbbu kon dañ ko teel a anticiper lu tax mu anticiper ko nag lenn kese la lenn moo tax ñu anticiper ko lu tax ñu anticiper ko moom mooy comme Tamba la ñu waxoon lañ ko nar a jàppee donc li mu leen défier dimb lañ jàpp ne ñoom def leen défier loolu moo tax ñu teel ko jël si Sonko eggul sax Tamba donc Sonko a été kidnappé par le gouvernement sénégalais Sonko a été kidnappé et la gendarmerie est en état d'alerte. Là, la la où je par la gendarmerie nationale est en état d'alerte. boo leen amee frère gendarme wala bu ngeen xam ngeen laaj ko la gendarmerie nationale est en état d'alerte Sonko a été kidnappé par la gendarmerie nationale et la police jàpp nañ ko tey faajaar jël ko exfiltré ko loolu mooy exfiltration dugg ci hôtelam génn ko exfiltré ko yóbbu ko exfiltration donc Sonko a été exfiltré de son hôtel et jël gars yi jël nañ ko disparaître ak moom donc la police et la gendarmerie nationale ont kidnappé le leader national Ousmane Sonko et ont disparu euh, ak moom kenn xamul fu mu nekk. ay ay protocole am nee nañ mënuñu ci jot gisuñu ko sécurité am nee nañ jotuñu ko gisuñu ko ñu ko wër yëpp kenn tegu ko bët Sonko a été exfiltré. kon donc foofu lañ yem ak yooyu laa laa doon mottali ko rek parce que benn ci leader Pastef moo doon woo di ma woo di ma woo di ma woo donc jël naa ko loolu la ma wax te nee naa ko pourtant def naa live wax la même chose am na nag ñenn ñu génn naan ay noo dafa respecté peuple ngeen mën a ma non Mollah c'est faux du ay respecté peuple ngeen nag dafa nangam ak nangam Sonko respecté na peuple ngeen loolu mënul tere nit génn di marché wala muy dox di ñibbi Sonko mënul ñëw fenn rek taxaw disparaître waaw Sonko voilà mu ngi noonu nee nañ Mollah oui c'est vrai il vient de dire que il est à Cité Gorgui c'est le c'est le euh, c'est le GM c'est le GM qui l'a oui la gendarmerie qui l'a récupéré et l'ont déposé là-bas donc mi ngi noonu il a été kidnappé il a été kidnappé par la police jël nañ ko foofu noonu exfiltré nañ ko yóbbu nañ ko ñetti information la ñuy joxe foofu pour wan ne ni ñoom la gendarmerie nationale bu ñu bëggoon jël sa baay dañ koy jël am nañ force bi am nañ pouvoir bi am nañ am am bi am nañ xam bi am jàng nañ ko xam nañu rey ni ñuy reyee nit nu ñuy feesee nit nu ñuy nangama nangam donc am nañ pouvoir boobu mais amuñu pouvoir téye mbedd mi loolu kese lañ amul dama ne gis nga gendarmerie police pour dugg sa biir kër génne la fa loolu am nañ ko pour rey la am nañ ko dóor la fetal am nañ ko xam nga lan lañ amul maintenir mbedd mi maintenir booy mbedd mi maintenir tàkk-tàkk yi maintenir dëkk bi yëpp di takk di lakk loolu lañ mënul mais ay benn nit kese ñu dem jàpp ko non loolu moom vraiment jafewu leen kon nag gars yi occupé les rues jël leen affaire bi gars yi ah gars yi faj leen faj leen gàcce gi nag hmm? faj leen gàcce gi nag parce que tam affaire bi mi ngi bëgg a yàgg quoi mi ngi bëgg a yàgg de ku nekk ku ci nekkoon nga cee farlu quoi voilà ku ci nekk war nga cee mun a taxaw ku ci nekk war nga cee mun a jóg ku ci nekk war nga cee mun a def sa fulla ak sa fayda kon nag sama gars yi ñu def noonu